ça va grand tur la. man Amadou Ba. Sénégal wala Guinée. ah euh, Sénégalais 100 pour cent. Sénégal pour cent. waaw Sénégal Guinée. loolu Haalpulaar noo ko gisee. ah bon comme sama copain mu wax rek affaire bi daanaka voilà. Hmm. compétition la rek. waaw ku mun sa morom rek day dumax. Hmm. voilà ñaan nañ yàlla rek na na na na que hmm. waaw. kan nga yaakaar mooy gagné. kii la meilleur ah bon am naa Sénégal moo leen mun. lan ngay joxe score bi. a ah, score bi 3 3 2 rek. wala 3 1. <laughs> waaw grand tur bi nan la. man Abdoul Bari laa tudd. Abdoul. Sénégal Guinée noo ko gisee. ah man gal lu ma ko gisee match nul. Hmm, hmm? match laa gisee match bi. ah match match nul quoi. waaw ku ne Tembo jàmm Sénégal jëm kanam. ah loolu moo am ëpp ah. solo de. Ah. waaw. ok ban ban ban appel nga ciy def rek également. man kay maa ngi ñaan yàlla kay gaa def jàmm. Hmm. moo ëpp solo quoi. match bi ni ma ko gisee ah. Hmm. mais ñu bàyyi ba jeudi rek quoi. Ah, nga yaakaar kuy gagné. waaw ah, mais yaakaar naa Guinée day gagné ah, parce que match bi moom. Hmm. ni ma ko gisee moom. Hmm. ah match bi gagné mooy loolu. match bi moom yàlla yàlla ñu gagné quoi loolu loolu laa la grand ça va. ça va très bien tur bi nan la Momadou. Momadou ngay Guinéen nekk Sénégal. waaw ñoo gisee Sénégal bi Guinée bii di ñëw. ñaari équipe yëpp taxaw nañ ñoom ñëpp supporté naa leen mais match bi su ma sañoon 3-3 lay jeexee. Mhm. waaw match nul quoi. match nul soo sañoon lan moo lan moo waral lool. da damay bañ ku nekk bañ a jooy quoi. 3-3 ku nekk day kontaan ku nekk qualifié ñu dem huitième de finale. ñu noonu la. Momini Diallo. Momini yaa ngi sol maillot Guinée de. maa ngi sol maillot Guinée moo ma gënal. Sénégal moo la gënal. Sénégal day gagné wala Sénégal moo la gënal. mooy gagné sax. mooy gagné ah. waaw incha allah incha allah. voilà ok. waaw ah, ah, bi day am ay 2 wala 2-0. 2-2 ah. wala 2 ah. la. <laughs> Ah, man ah. Amadou laa tudd quoi. Amadou ngay ah, Guinée. waaw noo gisee Sénégal Guinée. waaw Sénégal Guinée moom loolu jàmm lañ ñaan nag ah. Hmm. ndax ndax jàmm lañ soxla. c'est pas parce que tension lañ soxla. ndax Guinée Sénégal moom daanaka lépp ay benn lañ. Hmm. xam nga nañ soxla fair play lañ soxla. Hmm. ku gagné daal moo moom. bu dee Sénégal moo gagné hmm. nu supporté ko bu dee Guinée moo gagné nu supporté ko. Eh, mais nga yaakaar kuy gagné. ah non allah ah, moom nu too xaar yàlla moom. Hmm. nañu xam lépp na lay génnee quoi. man daal loolaa gis quoi incha allah na man daal soxla jàmm laa soxla. ku nekk na am jàmm Guinée na am jàmm Sénégal am jàmm. xam ndax soo waxee gars yi non ab Guinée la dafa ñëw pour fortaatu. dafa bañ fii am histoire. non amul sens.